président Sonko numéro 1 numéro 2 numéro 3 maa ngi nuyu bu baax di leen siyaar di ñaanal ñëpp jàmm di ko ci yéen mercredi 15 mars 2023 fii si rond point boulangerie Son jamono bi nag euh, gars yi ñu ngi fii di taal taal yu métti métti rond point boulangerie Son ngeen yi ñu ngi di manifester di taal lii di gendarmerie ak takk yi ñu ngi rond-point Blanche Risson ñu ngeen saxaar si noonu mercredi waaw 15 mars 2023 17h mooy daw actuellement sama gars yi cité kër góor gi ngeen seen rond-point Blanche Risson sacré gis ngeen embouteillage bi gis ngeen saxaar si noonu xale yi ñu ngi taal pneu yi takk der yi ñu ngi wéy di xamante ci koñ bi xaaral ma partage leen ay quelques images groupe président Sonko numéro 1 numéro 2 numéro 3. yéen a ngi gis noonu euh, li mu nekk groupe national bi ci wetu stade bi Asalem Grand Yoff euh, waaw ci pont de l'Émergence kon patriote yéen ñëpp ñu ngi leen di woo ngeen ñëw ñu def bloc fii pour dëgg. comme actuellement boo yaa ngi taal boo yaa ngi taal Kër ngi jax mu ngi baax jax waaw actuellement moom fu mu toll nii garsa garsa bi commencé na. waaw gis nga Auchan bee nekk na le xam naa ne booy fa lañ jëm waaw garsa garsa bi moom du yomb waaw taal nañ voie yëpp fu mu oto jàllatul gisoo même ba fële apparemment chose waaw Kër Massar prend feu en direct dara mënu fee xew mais lii Grand Yoff lay xew en direct Grand Yoff Grand Yoff lay amee de gis ngeen ko nii Grand Yoff en direct Grand Yoff cooy yi ñëw nañ seen oto baa ngi nii police ñëw na police intervenir Grand Yoff Grand Yoff yéen a ngi gis Grand Yoff jël na wàllam tànk Guy Marius Sagna mi ngi noonu so mi ngi mi ngi soog tànk bi nañ ko dóor grenade lacrymogène il est blessé gaañ nañ ko ci tànk bi ay eh waay gaañ nañ ko ci tànk bi tàmbalee saxaar dëgg-dëgg xat na yaay seen lee ci kaw lépp ay tàkk-tàkk la baat ñi fi mu toll nii baat ñi fi mu toll toll nii waaw mooy loolu li ñuy fu ne coow la ngi commencé ñëw waa dëkk bee ngi waaw waaw waaw fi mu toll nii daanaka force d'ordre yi dañuy dóor dañuy dóor lacrymogène booy di sànni xeer tali bi oto mënta dem oto mënta dikk mbir yee ngi commencé naxsaay mais gars yi ba léegi ñoom boo leen laajtee xam. lii tëngëj lay xewee nag tëngëj lay xewee mi ngi nii nii nii nii tëngëj lay xewee gars yi démarré nañ waaw gars yi démarré nañ ñi ngi démarré côté rond point HLM bi nii la ñu mi ngi noonu fii commencé na jax booy ñi ngi commencé ñëw benn par benn ñi ngi génn benn par benn. mi ngi noonu ñi ngi déplacer wu di demaat fenen voilà mi ngi ni partager len ko après tass len ko lepp lepp lepp lepp lepp na tas non dañ jëndat a ah, gis ngeen ko ni kawla ah, sànni bouteille bi fo wala non nañ dem bu sal bu sal nañ dem de padoa boy parcel yi jënd nañ na ñëpp génn kenn dul dem malina de padoa boy parcel yi jënd nañ na ñëpp génn kenn dul dem lii c'est anormal paa bi mu ngi toog xool leen paa avec son âge la xam ngeen mu bi munul mu munul def dara nekk bokkul si manifestation bi sax mu ngi nii mu ngi nii fii Bignona la ñu tiré paa bi fu mu toog paa bi mu ngi nii dina paa bi dara du ko dal bu mu ngi nii lii c'est anormal c'est anormal lii c'est anormal paa bi bokkul si marche bi xam ngeen paa bi avec son âge xool leen xoolal xoolal fu mu toog fu mu toog xoolal est-ce que Lyon là est-ce que Lyon là Hein est-ce que Lyon là? Pas paa bi xoolal. xoolal ngeen ne Macky Sall Macky Sall lan la bëgg si doomu Casamance Hein? vous voyez pas bi nga xam que bokkul ça si grève bi beaucoup bokkul si manifestation bi regardez-le regardez-le. Regardez le vieux. À, à, son âge là, vous pensez que ce vieux là fera, fera partie des manifestants ça c'est normal ça. On dit un pays, un pays, un pays. Ça c'est le Sénégal. Ça c'est une honte. Regardez, ah, Babi. Bourgeois, bourgeois. Tête, tête, tête, tête, tête. Regardez Dakar, regardez Dakar. Regardez Dakar. Regardez Dakar. Regardez Dakar. Nous sommes à direct de notre part. Regardez Dakar. Et là, nous sommes euh, en pleine direct. Ils sont en train de lancer des balles traceuses en haut. Et les manifestants sont totalement sur la défensive. Ils sont en train de tout casser. Voilà, là, ils sont en train de tout casser. Là, les choses euh, tournent Ouais, il y a les fumigènes partout. Et c'est mieux conseillé de rester chez soi. Wallahi. Car c'est pas sûr de sortir. Euh, en accent, 15 mars. Mercredi 15 mars. Dans les rues de Thiès. Entre rond-point Concorde, rond-point Hôpital. Les routes sont barrées. Barricadées. dans les